mbokk yi waxtu xibaar yi jot na dalee nag jàmm ñu jukki leen lu gën a fës li ci gën a fës ñu am yéene faram fàcc leen ko si la jotaayu xibaar di ko dóoree ak moom njiital MJKDFS di Ousmane Noël Dieng moom nag ci corité pour tous mu doon amal ci diwaanu Kaolack dal dina ci porox ndollu ñëwaat rek bu baax a baax ci nekkin bi nga xamante ne waa coalition Benno Bokk Yaakaar amal nañ ko ci diwaanu Kaolack di wax ne rek bu ñu bàyyiwul seen naxee mbaay bi nga xam ne ñu ngi koy amale jëmale ko ci njiitum réew mi Macky sàll élection moom fii la ci diwaanu Kaolack lépp dina furaax dal di xëddem euh, ci coalition Benno Bokk Yaakaar si la jotaayu xibaar bokk na euh, ci lu ñu war a waxtaanee buñ ci noppee mbokk yi ak beneen ponk yi itam ci langum politique bi bi la yoon nag Serigne Ousmane Niass lay wuyoo daloo baax ca lew na Niassène moom nag dal dina yëkkati ay kàddoom jëmale ko rek ci njiitum réew mi Macky Sall di xam rek deful dara ba dara booloo jeex ci diwaanu Kaolack ca élection bu fi amatee dinañ ko fi rek euh, gagné ci fi nga xamante ne moom moo di ci diwaanu Kaolack daal dina itam addu jëmale ko euh, ci maire bi di Serigne Boub ne rek euh, daal dina yëkkati ay kàddu yam xamle ci la jotaayu xabaar dinañ ci ànd ak li nga xam ne moom moo di élément bi mbokk buñ ci noppee dinañ dem ba ca diwaanu Ndakaaru Njaay suñu capital ca Yoff Laayeen ña nga xamante ne nag ñoom ñoo di njaboot ja mer nañu ba futtu di xamle ne rek lacrymogène ya nga xam ne daal dinañu ko nag sànni ci ab jumaa bu feytu yoon dootuñ bàyyeeti dara te rek dinañ ñaan li nga xamante ne moom moo di rek njiitum réew mi Macky Sall mu dugal ci loxoom ndax rek gile yoon nekk na loo xamante ne duñ ko bàyyi benn yoon muy jàlle noonu boobu mbokk yi élément boobu sax moom la ñuy yëkkatee li nga xamante ne moom moo di suñu jotaayu xabaar yi mbokk yi jàpp leen ne loolu ay ponk yu gën fës la bu ngeen taaxirloo ma dikk ñu faram fàccee beneen yoon yéen ñi safoo télévision bu Kaolack TV wax leneen ak li nga xamante ne moom lañ koy dooree ci xibaar yi docteur Rokhia Diakhaté directrice bu de la famille ak protection des pôles vulnérables moom nag ñëwoon na ci diwaanu Kaolack ànd ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di délégation bàyyi ko ci ministre de la femme ñëw nag ci centre de santé bu nekk ca Kasnack daloo nag ab bërëb bu yees tàq di xam leen rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jigéen ñi ak ndaw ñi ñuy faral di sàkku ci diwaanu Kaolack jeex ak centre bu bees boobu ñu lëkkaloo ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Enabel moom Roqiyatu Jaxate ay kàddoom rotal na ko ci micro Pam Maysa Diop dañu ñëwoon Kaolack euh, fekk fi euh, ànd ak sunu partenaire Enabel ñu fekk si euh, équipe ministère de la santé bi nga xam ne moo nekk fii ci centre de santé Kasnack ñu ñëw ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu baaxee terrain bi nga xam ne fa la ñu tabax centre bi nga xam ne daf ñuy permettre ñu ñu ñu fi jël di fi xool di fi say di fi saytu ñi nga xam ne ñooy victime yi nga xam ne dañ leen a néewal doole wala dañu am ay gaañu gaañu wala vraiment ñi nga xam ne daal dañ leen a toroxal ba nga xam ne euh, ñu ñëwoon tey jii nag fii ci centre bi nga xam ne moom lañ fi tabax te tabax bi euh, sunu partenaire bi nga xam ne mooy Enabel moo ñu si jàppale mais ba ñu mun ko def et tabax bi tey jii buñ ko mënee am waa ministère de la santé comme ni ma ko waxee léegi ñoom ñoo si jàpp ba ñu jox ñu terrain bi ba pare jël terrain bi dugalal nga dugalal ko ci biir hôpital bi te loolu daf ñuy yombalal ah, lépp lu nga xam ne mooy euh, faj biñ leen war a faj wala déglu déglu bi ñu leen war a déglu wala euh, accom appui wala accompagnement bi nga xam ne moom la ñu war a defal victimes yi nga xam ne ñoom euh, ñoom lañ fi war a jël. léegi tamit bi ñu ñëwee daje nañ fi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe de travail bi nga xam ne monsieur le gouverneur de la région de Kaolack moo en place mu nekk groupe thématique bi nga xam ne ñoom ñooy xeex lépp lu nga xam ne mooy euh, néewal doole wala toroxal yi nga xam ne moom lañuy def jigéen ak góor mag ak ndaw ah, ñëpp ñu nga xam ne rek seen doole xale yeggul seen ginnaaw euh, donc ñoom ñu ngi koy ñu ko ci sant di leen ci gërëm ñoom ñëpp ba pare ci loolu ci biir groupe bi am nañ fi nag sectoriel yëpp ñi nga xam ne ñooy yëngutu am nañ fi organisation de la société civile bi macha allah am nañ fi également euh, yeneen ministères yi nga xam ministères yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci loolu ba pare ñu am fi euh, les organisations de la euh, les organisations communautaires de base ñi nga xam ne ñooy englobé bàjjanu gox yi ak relais communautaires yi ñoom ñëpp bi ñu ñëwee fekk nañ leen fii ñu ànd ak ñun vraiment ci li nga xam ne moom la ñu ñëwoon seet si centre bi nga xam ne bu centre bi pare fi mu nekk ni pare na nañu war a livrer rek jox ñu clé vraiment ñu ñëw fii ànd ak ñoom pour vraiment def dernier visite bi nga xam ne incha lolu di ay kàddu yu ñu nangoo ci kii di rek euh, Roqiyatu Jaxate nekkoon ki nga xamante ne moom fi ministre de la femme et de la famille jëm ci protection des enfants mi nga xamante ne itam ñoo doon loli li lenen, bees loolee ñu wax leneen bokkoon comme ni ñu leen ko junjee woon ci bopp xabaar gi dañuy dem ba ca diwaanu Ndakaaru Njaay ca Yoof Laayeen foofa nag njaboot jafa yewo ñoom dal dinañu mer ba futu jëmale ko rek ci ñi nga xam ne ñoom doon rek sànni ay lacrymogène ci rek nga mu nga euh, Yoff ñu ne nag dootuñu mënuñ ko wannaa suuf benn yoon tax na rek ñuy xamle ne na ci autorité yi jàpp bu baax a baax ndax dootuñu mayeeti lenn rek lu toll ni tar fatar ay ni di amati si seeni gox bi nga xamante ni rek moom mbaay laay dal dina fa def lu yéeme yéeme ci la jotaayu xibaar ki nga xamante ne nag moom moo di imam Bassirou Thiaw laay moom moo ci rek rotal ay kàddoom te nag moom laay wax ngeen jàllaleel ma ko ci fépp ci àddina nañu ko dégg maa ngi woo ki nga xamante ni mooy njiital réew mi président Macky Sall njiit la yàllaa ko teg ci bopp réew mi dañu koy fonkale loola waaye nag ñu ngi koy wax ni mu wax ak ay ñoñom ndax moo jiite réew mi na wax ak ay ñoñom ndax lu mu leen diggal dinañ ko def na leen wax ni bërëbu Seydina Issa bii du fu nuy sànni ay lacrymogène yii na wax premier ministre am di Amadou Ba ni ko bërëbu Maam Seydi bii du lu nuy sànni lu mel nii lii de buñ ko fi dëkkee sànni est-ce dugg bi ñu fi daan dugg ñoom di fi toog ndax dinañ fi mën a toogate bay ñaan. te nga xam ni bu ñu fi nee tëll da ngay daw ñëw sukk ci moom ñaan ko looy wut nga ñëw sukk ñaan ko boo gisee lu ni mel bul xaar doom di wax wala sët di wax kenn ku ne am nga droit pour wax. violente wu ñu de violence amul si doomu Cambérène. ay nit ñu baax lañu ay nit ñu nu yar lañu. dafa fekk ni nit boo jaaree te fa nga war a jaar di nga jot kilifa ga te boo jotee kilifa ga mu wax njabootam. waaye boo jaaree feneen doo daj kilifa ga ñeneen ngay daj ñuy mbubbawoo ak kilifteef te fekk daanuwul sa ñoom kon nag li nga xamante ni moo nekk ci sunu dënn dina dinañu ko génne li nga xamante ni itam moonu tee nelaw ci fan yi yëpp te nelaw képp ka nga xamante ne nii waxuma la laayeen jullit nga nga gis image yi wallahi nazim waay boo waay lu ñaaw kan moo koy rafetal lu ñaaw lu ñaaw rek la tudd lu ñaaw nan lañ ko mën a woowee lu dul lu ñaaw lu ñaaw la tudd ma ni force de yi lu ñu def lu ñaaw la kon bi ma woowee président Macky Sall ci loolu mu jël si ay masir ci Cambérène ak ki nga xam ni mooy Amadou Ba di premier ministre am ak ki nga xamante ne nii mooy ministre de l'intérieur defe naa lu yëngu ci réew mi ñooñu la ñuy njëkk a interpeller pour ñu ñëw def li nga xamante ni moom la ñu war a def te message bi bëgg naa tey tey ñu jot ci ba yëf yi ñoom ñoom ñu jëlal ko seen bopp amee ñëwal seen bopp dox lépp li nga xamante ni moom la ñu war a dox mi médiation bi nga xam ni maanaam mooy tuubal yonent yàlla saa mi ni lu bon lii du fi amati mu ndax lii ñaaw na ba fa ñaaw yàq bokkon na comme niñu len ko jinjé won ci bop xabar gi ñew nak ci diwanu Kaolack comme niñu len ko jinjé won ci bop ba ak euh, ki nga xamné mom modi Ousmane Noël Dieng nek nak euh, njiital mouvement MJD MZK DFS mom nak ci courité pour tous bi dal dina rek euh, prox ndolu di xam leen rek coalition ben bok yaakar leader yi fi nek nak dañuy naxé mbay jëmele ko ci njitum rew mi Macky Sall té lolu sax buñu ko dakalul melni nak dal dinañu rek xam le li nga xamné mom modi élection mom dinañ ko lajji wat ko ci dëkk bu Kaolack Ousmane Noël Dieng ay kaddoom rotal na ko ci micro Kaolack TV. Kaolack c'est notre région ñun ñoo ko bokk Kaolack boo leen seetloo parti au pouvoir mosu koo ñàkk barki démb président Macky Sall recevoir na ma ma waxtaanee ma pendant trois de temps ñu wax fa ak yi nga wax dëgg ma ne ko monsieur le président pour bañ naa ndax Kaolack buñ ko bëggee gagné il faut ñu toogaat ñun ñëpp avec leader yeeg yëpp toogaat. mais ni ma gisee ñi doxalee Kaolack mosoo ñàkk Kaolack parti au pouvoir mosut a ñàkk Kaolack mais li si ça continue encore yàlla bu ñu la daal waaye di nga ñàkkat Kaolack pourquoi Kaolack ñun mun munuñ munuñ gis suñu bopp ci président Macky Sall lu tax parce que Kaolack va comme vont ses dirigeants parce que politique du dajale suñu sëriñ si su fekkee da nga leen jël teg leen ci tànk gàddu ay ceeb gàddu ay diwlin jël sa enveloppe bu 10 millions 5 millions jox ma laqal ko kenn bokkal ko kenn euh, nax nit ni mais lii ma gis nii ngeen bañ a topp lii fii amul problème ay ay ay coordonnateur rek ay je suis nangam fii loolu di ay kàddu yu ñu nangoo ci ki nga xamante ni rek moom moo di Ousmane Noël Dieng njiitale MJKDFS mu doon àddu nag jëmale ko rek ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii la ci diwaanu Kaolack mu mel ni que nag moom Serigne Ousmane ñaas mel na ni ku koy feelu gi la yoon moom la ñu àndal muy rek yëkk lu mel ni xeme njiitum réew mi makki Sall neen na nag defalul Kaolack dara ba dara booloo jeex te sax boo sàgganewul élection 2024 yi nag dina ndermelu ci diwaanu Kaolack laata rek muy addu jëmale ko ci euh, coalition bi waaye nag ci leader yi nga xamante ne ñoo ŋànk Benno Bokk Yaakaar dale ko ci Mariama Sarr ba ci rek ki nga xam ne moom moo di euh, Pape Demba bi tey ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Kaolack. ndax boo xoolee Kaolack état defaluñu dara te boo xoolee président Macky Sall saa yu ñu demee élection Kaolack moom daf koy baatare daf koy dóor daf cay daf koy gagné 100 pour te ñun waa Kaolack Macky Sall defaluñu dara. lan nga xam ci Macky Sall bimu mu toogee Sénégal ba léegi lan nga xam ci Kaolack fi lum mu fi inigré yow boko xamé man mën lan la fi inauguré bu fi toogee léegi def fi dara ñun luñu dara dara luñu ko té ñim ñi boole ñi ñi nek fi ci di am ay homme politique defuñ fi tous duma len ragal damay tuddi sen tour yi muy pap demb bi tay di Mondiaye Rahma di Mariama Sarr ak ñeneen ñu melni ñom defu luñu wa Kaolack dara buñ waxé ma dégg ñu naan ay Pape Demba day fa la ñun lew nañu seen gi ñu dëkk nii am na poto yoo xam ne lamp yoo xam ne lakk nañ bi yàgg bu événement di jot ziara wala gàmm ñëw leeral taal yi ñaari fan ñett mu fayaat comme lu mu fi def te fii Kaolack gi la dëkk te defu fi dara barki dem damaa jógee dakaar ci diggante Sibassor ak Kaolack diggante boobu am na ci diggante boo xam ne àll bu lëndëm la foofu mën nañ faa rey nit ba suul ko te kenn du ko xam te nekk doomi Kaolack moom Mariama Sarr moom ma dama koo jëlalee toog na ci mairie Kaolack ba jóge fi benn doodaan la def bindu këram benn doodaan Kaolack am na ñoo xamante ni ay om politique lañ te ñu ci nguur gi defalu ñu dara Macky Sall pour na ko xam képp ku ko wax nag mu ngi def Kaolack Dakar waxul li am ay nar la du dëgg ndax li ñuy def ku ne mën na ko mooy bu événement jotee korite jot nga ñëw jënd ay nag rendi ko def ko ay sàmm ay mbuusi yàpp yoo xam moo sax libre ay keesu ko góor suuf si góor 5000 francs loolu lan na man man mii rek man mii ci diggante weeru koor bi ak korite gi li ma séddale ci xaalis ëpp na 400000 ci ñi ma ko jox ci ay ndimbal. que ñun ñun sëriñ su ndaw si nga xamee ni euh, maanaam wàllum xaalis su ñan yàlla li ñu dundee ñun ñooy def loolu asuma ñoom dañoo bëgg ñu defar luñu suñ Kaolack yi li ñuy def noonu ñu soxlawuñ loolu te ngi wax waa Kaolack na ngeen am fayda Macky Sall defaluñu tous élection euh, président yi ñu jëm nii nañ fexe Macky Sall na ñàkk fii man de gis nga ni ko defee woon ci élection député yi laa koy defee. billaahi wallaahi taala élection yi ñëw Macky Sall day perte day perte Kaolack te ci sama loxo lay jugee man incha allahu rabbi man eh, dama ko wax en tant que borom leeri ak tamit en tant que responsable ci ñaar yëpp laa ko teg dafay dafay perte kaw lax man maa la ko wax loxol noté ko li ma wax xoolal boo ñu ma ko mu yóbbu faar li ma wax dafay am far la fausse élection yi ñëw Macky Sall day perte kaw lax incha allahu rabbi te ci sama loxo lay jaaree man bu deexee yàlla ñu desandi ba tey su suñu micro ak Serigne Ousmane Niass borom leer gi moom nag gi yoon attaqué na song ki nga xam ne moom moo di nag meeru Kaolack di Serigne Mboup bàyyi lu ko dara ñu teewlu élément Kaolack lëndëm tàng dëkk bi naqari jeunes jeunes yi fi nekk amul liggéey di dawal jakarta di def ay soog tëli yi baaxul ñu def ay soog mhm. ci tëli bi mhm. ñu nekk ay sujet de famille. Mhm. loolu dañoo sonn ci loolu. Mhm. may ah, seetaan naa ko seen divi. muy wax ne budget budget maire bi. waaw naa ko ci 2 milliards yóbbu ko ci 5 milliards déedéet loolu amut. Mhm. jëlee bëgg naa koo jëlee ci 2 milliards yóbbu ko ci 5 milliards. sëñ bi dafa ko fi def lan la fi def. loolu du moom na ko UDG yi ñoo ko def. waaw loolu UDG yi ñooy bale. te dëkk maanaam Kaolack Kaolack du lew na kese la de. déedéet Kaolack surtout am na ko ñoo xam boo waa koñ ma yi fa dëkk buñ ko balewul du set sëñ boobu ñu def lu ñu dara na bàyyi wax waxam ci tëli tëlim gii génn ci rajo yi na at ak at ak nangam léegi ñaari li mu mat suñu waxee mu génn ci télé yi wax kaw ak lii kaw ak laa daaw ci nawet bi mu fi def këram indone mu vidéo ko ci youtube bi ci tag ci topp bi naan xool leen yéen waa Kaolack sama kër maa ngi nii dafa indone kon yéen bu leen indone bu ngeen wax xam nga sëñ boobu dafa yabaate daf ñëw yëpp na bàyyi dafay yabaate yi muy def boobu ñu fontoo ñu nuy ay moromam du ñew fi ñu far ko ñun suñu kër alañu tuddi tuuti far ko mhm. loxo bo fay na nga liggéey la liggéey ko tam ci tale yi di farang farangi mel ko ku xaj martankat bi fu ne mu dem fa taxaw naan ma ngi liggéey la mi ngi set mi ngi nangam di def ay publicité limi def c'est faux dara amu ci du deug mhm. man mako wax c'est faux dara amu ci mhm. deful dara liggéeyuñ tous na liggéey la te su ko liggéeyul juromi at yi mu fi tok su jexé jaru sax muy demal di laajal kaw xanaa juróom juromi at yi su su ma tee ah. liggéey na liggéeyut xana mu liggéey sax lay wax bu liggéey bañ contane man maa koy falaat man lu sëñ Ousmane Niass borom leer mhm. man maa koy falaat su liggéeyut bu ko neexee dana wër ci sëriñ bu ko neex ci àddina bi si waxuma la Sénégal de mhm. si ko sëriñ bu ko neex ci àddina bi dama koy folli man kër buy fal di folle nee naa la ko fal wala ma la wax sëriñ boobu sama papa moo ko fal sama papa Alaaji Moutour Niass moo fal sëriñ boobu billaahi wallaahi wa taala du ma la di wax ci barke Cheikh Ndiaye daf koo fal ba pare yàlla wan na ko man oo nday bu fekkee ne li muy li may wax daf ko wéy na génn wax na du dëkk man maa ko bay saas wax ko lépp man ma ko yàlla woon sama papa moo ko fal yàlla woon ma ko man te su liggéeyul Kaolack juróomi atam yi su ma tee liggéeyul Kaolack na dem ci sëriñ bu ko nekk ci àddina bi day wàcc te man maa koy wàcc bi Euh, gannaaw ki nga xamanteni nak mom modi Serigne Ousmane nias euh, borom leer gi kaddu yo melni nak lu woro gannaaw mom ki nga xamne mom modi rek njital Aprodel di Moussa Fall mune nak nag Serigne bop ci diwanu dal dina ko rafetlu bu baakha a baax loolee tax mune rek bes ni ki tay joxante na ak loxom ki nga xamne mom modi nak di nag di Serigne bop tay tam di wo ñi nga xamne ñom ñoo gi ñu ñew japp ci rek développement Kaolack nek na lu ko yitel ay kàddoom rotal na ci micro Kaolack TV. tey euh, saluer acte bi mu def. Mhm. ndax nag euh, ñun li may faral di wax rek euh, nit ku nekk ku la yëg moo la sonal. di ootewaat waa Kaolack waa yi Kaolack yi nga xam ne tey yàlla dimbale na leen. Mhm. pour ñu ñëw ànd ak moom. Mhm. jàppalante moom ñu liggéey dëkk bi. ndax dëkk bi sëriñ bi rek moom moomu ko. moom lañ fal jiital ko nag mais dafa am mission yu ko jox mission yu ko jox xëy na. ay mission administrative la ay mission politique la mais nag dafa war a accompagner ñu jàppale ko ci liggéey boobu noonu ku nekk sa sa doole sa mën-mën sa xam-xam. foo ci mën a mën a toll nga jàppale te yàlla tax te xam ne réew mi taw la nga koy defal. te loolu damaa jàpp ni comme ni ma koy waxee ñun a dafay romb suñu jëmm yi Kaolack romb na Serigne Mboup romb na Moussa Fall. romb na parti politique yi romb na PDS romb na APR romb na Accordel Kaolack moo ñu jiituñu moo nekk suñu kanam mhm. donc lépp lu waay di def dañ ko war a dëkk bi moom dañ ko dañ ko donn ci suñu ay maam te ëllëg si dañ ko war a jox suñu doom mhm. loolu nag du duñ ko xamee ku nekk sa warugaat da ko war a def te bañ ko def noonoo bañ koo def rayante bañ koo def xiiroo bañ ko def ŋaayoo ku nekk li nga mën ci sa xam-xam nga indi ko pour dëkk bi man loolu laa mës a gëm mhm. yàlla moom la fi teg nag jàpp naa ni te dañoo nangu ndogalu yàlla man bokk naa taxaw ko yàlla tegee ci bopp dëkk bi ñaanal ko yàlla parce que suñu Abdou Aziz moo doon ca gaal ga ca ëmb nekk ci ñaareel gaal ga mucc sa ëmb mucc. donc loolu foofu laay daanalee ni ñun kat lépp lu ñu oo ci dëkk bi loo xam ne liggéey Kaolack gi la damay teg sama parti fële teg samay militant fële teg sama sama sama sama samay préoccupation fële. Mhm. teg sama intérêt fële. Mhm. ànd ak ñoom liggéey jàppalante dëkk bi sama kéemtalaay kattan sama politique jotee ma def ko. wax naa ko ko sama politique di joxe ma def sama gestion politique mm-hmm. mais ku oo ci dëkk bi jàppale dëkk bi liggéey dëkk bi parce que dëkk bi sama dëkk la fi dëkk samay titre foncier mm-hmm. ñoo fi nekk samay njaboot ñoo fi nekk samay militant ñoo fi nekk samay responsable ba pare ma créé parti tuddee ko l'alliance pour la promotion développement local mm-hmm. kon boog du ma jëlee loolu ne suqali dëkk moo ma tax a jóg kon ñu ma woyee sama dëkk dama war a dem loolu di ay cadeau yu nango ci musafal rek Moussa Fall njital Aprodel gannaaw rek ba mu xamle ne ngi liggey Kaolack mom moko ñor waye tam nak kep ko xamne day développer Kaolack mel ni Serigne Mboup mom lay jox loxo ñu wax leneen langum politique bi gi la yoon dañu dem ba ci diwaanu Medina Baye fofa nak ci walum diine ki nga xamanteni mom modi Medina amna rek ab imam bu yees mu nek rek ki nga xamne mom modi Serigne Maye Niass Serigne Maye Cissé mu melni ke rek yang mu yekeuti di ay cadeau cant waaye itam kàddu yoo xamante ne dañu ko waxtaanee ci biiru nekk moom la dal di rek xamle ñu teewlu élément bi te ñëwaat. loo xam ne itam. ñu am leneen loo xam ne itam. dëgg-dëgg ñun ñëpp war nañ koo bëggee war nañ koo kontaanee. dëgg ñun ñëpp war nañ koo bëggee. te war nañ cee kontaanee. suma waxtaan diggante imaam Cheikh Cissé. sëriñ bi ne waxtaanam ci ak digganteem ak imaam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. ak Mouhamad Cissé. ak imaam Mouhamad Cissé. ak Mahi Cissé. ak imam Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé. ci mbiru jumaa ji. ci mbiru jumaa ji. ak ci mbiru jiite yi. ak ci mbiru jiite yi. Cheikh e, Mouhamad Cissé. Cheikh Mouhamad Cissé. li mën yëpp def na ko. li mën lépp def na ko. ne kattanam jeex na. fi ne kat. mom yëg ne kattanam moom yëg ne kattanam jeex bon bëgg na ku koy ku koy dimbale. bon bëgg na ku koy dimbale. mu gis ne. mu gis ne. Mahi Cissé. imam Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé. mën naa taxawee loolu. mën naa taxawee loolu. ñu def ko imam ñu def ko imaam. ci ajjuma yi. ci ajjuma yi. ñu def ko imaam. ñu def ko imaam. ci ñaari iid yi. ci ñaari iid yi. iidul fitri ak iidul adha. iidul fitri. iidul fitri. tabaski. tabaski ak ak ak tabaski. ak tabaski. loolu yëpp. loolu yëpp. liñ ci jublu yëpp. ak liñ ci bëgg. liñ ci jublu lépp. ak liñ ci bëgg. mooy continuer suñ tabaxi maam yeeg bàyyi ci nit ñi. mooy continuer suñ tabaxi maam yeeg bàyyi ci nit ñi. imaam. ku dégg imaam. ci kontaan ci bésu tey bi ci bésu tey bii. sa xol sedd na. sa bés sa xol sedd na. ndax xam nañ ne alhamdulilah rabil aalamiin. ndax xam nañ ne alhamdulilah rabil aalamiin. imaam yaa ngi fi rek. imaam yaa ngi fi rek. ku tële rek jox sa morom. ku tële rek jox sa morom. te ku ñëw rek. ku ñëw loo xam ne. te ku ñëw rek def loo xam ne. nit ñi dinañ xam ne kii lii ñu ko tànn moom la. nit ñi dinañ xam ne kii lii ñu ko tànnee motee na ko. mu ngoog boobule élément sax la ñuy yëkkatee suñu jotaayu xabaar yi tàggoo tàggoo bu dul taqaliko ci télévision bu Kaolack TV jaajëfal leen yéen ñi fare woon ci déglu bi ak seetaan bi jaajëfal ko moom bay Mor ak équipe ñoom ñoo jàpp ci machine gi ba mbir mi mën a yemb di leen di jox dig daje di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla mi borom jàmm mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na jël jàmm waddal ko ci mim réew ñu fanaan jàmm jërë ngeen jëf